gisaane di xanaa Jérôme xanaa waa jooju dañ woon ministre la. ah yow nag xam nga xam man xam naa xam nga ministre nga rek garaawul. déet wala da ngay liggéeyal waa présidence. ah temps yi moom dama bëgg naa la ñaan audience sax. Jérôme. bu ma Jérôme xam nga man lu baax rek laa yow bu ma taxaw wax waaye bàyyi bàyyi bàyyi yooyu. ci loolee nekk. gërëm yàlla bu baax sant yàlla bu baax Jérôme. Azaram. waaw. moom Sénégal moom noonu nii rek la nar a doxee. xam naan ndeysaan Cheikh anto Diop jaaroon na fi Ndumbuba Patrice kuruma xuru kuruma waxoon na ko ñooñ ñooñ ñëpp daal dañoo dee Afrique ndax bañ ah. wala dañoo bëgg toog naan Sonko jaaroon na fi amoon na benn leader bu tudd Sonko jaaroon na loolu la ñu bëgg. mais est ce waruñu weesu foofu noonu sax naan diw jaaroon na fii est ce que itam euh, gars yi ci taxawaay est ce que ñi nga xamante ne tey dañ leen di citer en exemple ñoo xamante ne jot nañu xeexal seen réew est ce que seen combat yooyu noonu waruñu koo jëmmal matérialiser ko ba mu bañ a neen. Sonko Zaram Sonko Sonko opposition bi moom bu leen xalaat opposition bi bu leen xalaat mais zaram ala société civile ay kooku dëkk kooku dëkk tëngeej ay xawma maam xawma nu mu tudd nu mu tudd kuy dëkk tëngeej anam ko kanti am na ku dëkk tëngeej xawma nu mu ma man ngay si Siise xawma anamu moom kooku anamu mu Ndiaye Cissé moonte de démb rek ñoo ngi def benn kii benn benn communiqué ak itam am na benn benn ndaje bu bu ñu defoon ci biir semaine bi aussi pour quand même euh, parler de la de la situation mais xam nga mais xam nga mais affaire affaire bi du communiqué affaire bi du communiqué mhm. affaire bi jëf la ah, mais mais mais koo xam alors kooku doon wax fra France justice c'est al xooman affaire justice kooku anamu moonte ne ñoom ñëpp ñoo booloo daje. man ñoom ñëpp ñoo booloo daje. Birahim sekk moo ngi fii. Borom Cissé ñoom ñëpp ñoo ngi fii ah. Birahim Seck waxuma ko Birahim Seck ak beneen paa bi dëkk Pikine kooku waxuma ko alintin Tine ñëpp koy dégg Birahim Seck ñëpp a ngi koy dégg. Mhm. mais société civile dafa bëri ay tappalekat. Ah, waaw <laughs> malheureusement malheureusement dog dog am na ci ligne bi xam naa dina dugaat léegi-léegi mais il faut aussi comme comme comme ni ma koy waxee parce que ñi nga xamante ne tey on dit ñoom ñooy ce sont les de la démocratie aussi euh, ñoom ci à travers des manifestations à travers des communiqués à travers des prises de parole ci la mën a quand même askan wi waaye su fekkee ne Sénégal daanaka ndaje boo bëgg duñ la ko may xanaa vendredi passé ma su nekkee dañuy ñaan ngir ñu may leen te ñu wax euh, li nga xam ne moom lañ soxla te may ñu leen ko baa nu ñuy def tamit fi nga xam ne yow foofu nga bëgg a yàqee sa naq zaram sëriñ si dañoo bari sëriñ si daa bëri ay tappalakat sëriñ si bëri tappalakat sëriñ si sëriñ si dafa bari ay tappalakat politiciens yi dañoo bari tappalakat Sénégal njaboot gi imaam yi imaam yi dafa bëri imaam yoo xam ne tappalekat lañu xam nga imaam yi taxaw naan ay yaa ñu teree julli tisbaar ak tàkkusaan ñooñu ay tappalekat lañu. loolu ci biir réew la amee. mu ne. ma ci Sénégal la amee. Ah, ah yow kii Amadou Ba demul parcelle. élection kii sa imaam yi taxaw naan ko tisbaar ak tàkkusaan yaa ñu ko teree julli. Zanam réew moomu réew moomu lu ne am na fa numéro 9 nit sol na fa numéro 9 sol numéro lu xonk di di tiire nit ñi arañu. police gendarmerie tappalakat juge ñooñu ay tappalakat Sénégal dafa bëri ay tappalakat Zanam mais doomu jaamur bi dinañ ko sacrifier léegi dañuy sacrifier doomu jaamur ñu naan ay ndeysaan Sonko Sénégalais yi si boppam yéen sacrifier doomu jaamur. parce que ba mu toogee leen pare ngeen mënoon ngeen ko wax pare wuñu <laughs> Sonko da leen ne pare ngeen gars yi na ko pare nañu mu wax leen ko ñetti yoon ñu ne pare nañu hmm. mais boo leen parewul dañuy teg xeex bi si suuf hmm. kon moom li ko war def na ko Sonko ba dernier nooyeem moo ngi xeex hmm. mais léegi dañuy toog ñu sacrifier ko zaram mhm. zaram Sénégal bu ñu bëggee na avancer nañu xool ak bët ak di waxante dëgg mhm. te bàyyi yi ak affaire intérêt mhm. ñun bu doon intérêt rek mënoon nañu dem sañu mbokk yi faral leen ñu ñuy compal mais ñun intérêt taxu ñoo jug dañuy wax dëgg te yàlla tax Sénégal waxatu dëgg yee ngi fa de bañkat yee ngi fa man kenn du ma noot man kenn du ma noot tubaab yi may liggéey sax duñ ma noot parce que bañkat dañ koy judduwaale mais Sénégal dafa bëri ay naa fekk ak ñoo xam ni intérêt teere xaalis teere xaalis kër teere yi leen dagal ak xaalis bi ñu leen di jox moo tax kenn du wax mais pour lan pour lan léegi dañuy sacrifier doomu jaambur c'est que man sama problème mooy est-ce que dañuy sacrifier doomu jaambur gi mm-hmm. journaliste journaliste yi quatre vingt dix pour cent sa mbokk journaliste yëpp ay naafeq lañu. duñu wax dëgg. bàyyi leen bàyyi leen journaliste yi aussi man lii moo tax. mais journaliste yi si la ñuy mais xam nga xam nga tey xam nga xam nga tey comme on dit chaque personne qui travaille dans un média il est libre de choisir sa ligne éditoriale. man mi nekk fii tey man mi nekk fii tey déedéet. xam nga fi tey. Pape Demba léegi Pape Demba tey. man mi nga xam ne maa ngi fii nii tey ci télé Sénégal di def li may def man la neex ma koy def. ak boroom kër gi. xëy na mi nga xamante ne moom sànc na këram. jàpp ne lii ak lii suñ ko defee yoon la askan wi dinañ ci gis seen bopp. moo tax ñu koy def. waaw soo demee feneen ak waaw ku ca nekk yaay xool sa ligne éditoriale nga koy def. waaw léegi ma laaj la yow ma laaj la leen la saram. waaw. sa émission ñaata nit a ciy woote. ah vraiment bari na moom wax daanaka gën gaa néew chaque moom naa. est-ce que est-ce que ñooñu ñëpp est-ce que man. Zaram yow est-ce que da nga maa neexal pour may woote. wala da nga ma woo naa papa de ma del woote. <laughs> déedéet loolu lu tax nga nekk fi nga njëkkoon nekk dama fa doon woote. Mhm. lu tax nga ñëw fii may woote. parce que boo newoon nit koo xam ne doo nekkoo ci dëgg du ma ma la du ma fa woote du ma sama temps di woote. Mhm. lu tax lu tax nga nekkoon fenn. jóge fa dem feneen nit ñi ñi nga xamoon foofu ñu continuer di la woo di wax lu tax loolu nañu waxante dëgg zaram mhm. nit boo nekkee ci dëgg doo ci wéet mhm. yàgg yàgg yàlla dina la dimbali mhm. parce que ëllëg bis bu neexee bu ñëpp di tàllal loxo dañ naan hé zaramkat ba mu naqaree da doon tàllal loxoom ne lii du yoon yow sa yoon newu ci mais yow da ngay def sa liggéey yow xam yow xooloo lu neex kii xooloo ne yow si digg bi nga nekk dangay laaj say laaj nit ñi di la tontu. Hmm. bu nit naree déborder sax nga ne ko déet bul waxee noonu waxaleel nii. d'accord man mii bu ma naroon déborder daanaka Papa Demba ah sama émission kat nii yaa ko bëggee ñu fekk ci la. mais nag bu ma ko bu ma wax loo xam ni yow dalay leer ka ne yow li ngay wax yow gëmoo ko du dëgg xam nga lu gën a garaaw yow magum jëm nga taxaw di wax yow mu wóor na la sa diggante nga xam ne du télé seen seen kii bi ba mu tijjee yaa am na ñu ko fi njëkk téeméeri yoon am na ay télé yu ko fi njëkk mais li ni li ngay ni encaissé si coup de ak ñu fay woote mais duñ fa woote si ñi la njëkk tijji lu tax loolu mais bu ñu sacrifier doomu jaamur ji sénégalais yi si boppam sénégalais yi Macky Sall moom waxuma ay waxam Macky moom kenn du wax ay waxam parce que Macky moom yoru xolu jullit Macky Sall ak kooku sant xooma jaxate kooku xam ne muus yeeg kaña yeeg xaj yi sax a ko gën gën gën ko judd koo kenn du wax ay waxam man baal ñu tamit baax na <laughs> ok am naa nañ déggantaat jaajëf merci beaucoup merci di euh, kontaan moom gars yi nee nañ sa waa moom ni muy waxee moom dëgër na de ah yaa ko dégg gars yi nee nañ ni ngay waxee dëgër na trop voilà mais tamit euh, comme comme je l'ai dit chaque fois ku ci nekk ak tempérament bi nga xamante ne mais aussi lu ñuy wax rek nañ ko teg ci euh, ci ci ci ci ci ci xel mu rafet aussi ak respecté ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan peut-être avis yi mën na diverser avis yi mën na diverser ni nga xamante ne noonu la ñuy bokkee avis